mbokki Sénégal mbokki amateurs yi rendez-vous bi benn la le 3 novembre ci arène nationale Jandeer production moo woote bés bu mag boole ñaari ndaanaan ñaari champion ñaari gaynde waaye ñaari bañkat jamteer yi bu kayaar xale bi nga xam ni avance am dugg na ci kër bu ne ñu delloo ki ko jël nag du kenn kudul général bu Malika xale bi nga xamante ne ni def na champion d'Afrique wane boppam ci réew mi ba ñëpp ràññeeku xanaa du loolu mooy bombu nucléaire combat boobu nag la ñu jël daal di koy duppee ki nga xamante ne nii mooy Ibrahima Faye Beuz mooy borom Lutte TV BP Actu affiche.com le plus jeune PDG de l'Afrique de l'Ouest waaye mbokk yi ci bés boobu Pape dina fa jàkkaarloo ak caatu waalo combat boobu nag lañu jol jël tuddee ko monsieur Ablaye Diouf waaye mbokk yi bu leen fàtte de Farouge ndaanaan bi dina fa jàkkaarloo ak Cheikh Super Jamono mi am jom lool Gorofil dina fa jàkkaarloo ak Talla Gaynde mbokk ak yeneen combat yu doy waar yu neex ay xale yoo xamante ne ni ay ndaanaan kullu fadlin lañ kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu le 3 ñu ànd ci ak Jandeer production jërëjëf mbokk yi suivre Lutte TV ñu ngi leen di bu baax a baax di wax ngeen gën di wéyal di abonné wu di aimé di partagé da ci am solo champion bi nag di Calcio nekk fi woon dafa voyagé woon mais moom ñëwee dafa indi changement bu rëy gis ngeen changement bi daa toj daa mel ne physique la doon liggéey doole waaye moom toog benn place te du wax wala du def ay kii mënu ko Calcio ñu ngi lay nuyu auzu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani laa xawla wala xoota illaa billahi azim bisimilahi sar bone sar sar bone yoo bone e dam bayo jam yeeso laatin fatin jaban muskora kumba bete sire bete kumba bete sire bete kumba bete bayfal café bete kumba bete bayfal borom café gi bete kumba bete boy fay bete mbir mbar mbarara mbor mbor mais e bete bete moom mooy lan waaw loolu sama loolu sama sama kaddu la loolu sama kaddu la mënul ñàkk quoi gannaaw yàlla bi ma bi ma sante suñu borom julli ci sangu-sang yi di sant sama ñaari waajur maa ngi sant bu baax a baax sa baax sama sëriñ benn sëriñ la am koo xam si moom laay topp ba yowmal xiyaam moo ko neex àjjana la may yóbbu moo ko neex safara la may yóbbu muy naar bi naar bi yàlla na fi yàgg loolu te moom mooy xool nag yowmal fu mu may jëmee fu mu yóbbu baax na nag bu ma yóbbee àjjana baax na ma yóbbee safara baax na moom daal mooy xool fu ko neex gannaaw yàlla ak yonent bi ak sama ñaar waajur mooy sama sëriñ wax dëgg yàlla loolu ñëpp ko xam topp mais booy booy fay mi ngi nekk à côté di rek ak gaay mi mu àndal xam nga xam nga yow li nga bëgg a defaat lii bonus la parce que waxoon naa la bu ñu defee fii émission bi bala am une minute xam nga naa la ko nee la bala ñoo commencé sa booy fay dina ñëw tey instant bi yaa ko nar a jëlaale fi ñu toon loolu lépp da war a fay mais nag vie ngeen di am ci man da ngeen ma war di fay nag doom yaay bañ gëj a def émission léegi léegi ma cinq mois de xaw ma quatre te xam nga bu ma defee gars yi def ci semaine bi yëpp da ngeen leen di bàyyi barke Seydina Mohamed doxaloo ñu dem mais Kabzo fan la newoon man nag wax dëgg yàlla man maa ngi fi maa ngi diggante Arafat diggante Aras diggante Barzak diggante jéggi siraat man daal maa ngi fu ne mais nag maa ngi woon Gàmbi quoi di sant bu baax waa Gàmbi Gàmbi bàyyiwuma kenn kenn kenn rawatina ñoom Roqoy Thiam borom Angleterre Roqoy Thiam ca Angleterre ñooñu ma ci kenn waa Gàmbi ma kenn sama jabar ca baay ma kenn ñu nekk fii baay ma kenn maa ngi woon Gàmbi néewoon ci samay business quoi man nag sama benn rakk bu ñëw Alassane Ndiaye Alassane waaw série lan moo la yóbboon Gambie. ah su ma rakk laa àndaloon moom moom laa la expliqué nii fa lañ nekkoon néewoon ci ay affaire business ay oto yooyu quoi yooyu laa nekkoon. yow est ce que yow Calcio doo bàyyi làmb ci dem toogee Gambie yow daa ne fa nga jëm. non waxtaan wax dëgg jëla nag booy fay mi sax xam na ne bi tekki naa ngemb li bu yàgg yàgg moom xam na ko waaw. sa waay da ngay entraîné bay bëgg a dee gars yi kenn du la jël da ngay jël combat ba combat bi des ñaari fan ñu la ya na dafa metti barke Sidina moom dafa metti père père nag dafa ma waxoon ni ma il faut ma bàyyi liggéey may liggéeyaate mais nag xam liggéey mënul ñàkk boo leen liggéeyulee ñu liggéey la loolu moo tax il faut ngay liggéeyaat mais yow say adversaire lañ lañu xamul ah waxal Boy Faye mu wax la samay adversaire ñooy say adversaire ah, waaw wax la Boy la ko samay adversaire Boy kenn xamul ay adversaire am man sa waay xanaa dégg lu may man dama la man nagu ràmm laa man nag yee may daw daw ma wenn nag du booy Faye xam nga li nagu ràmm ah, mooy nag woo xam te dafa wopp ba baxatey di génn mooy fay xam na li nagu ràmm parce que moom yàgg nay jël ay nag nagu ràmm mooy nag waxam boo ko fekkee ci gétt gi day feebar ba baxate yi fu na lay génne man nagu ràmm laa daw ma wén nag nag yaa daw di santaat bu baax nag sama sëriñ sama xarit naar bi expert waa dama la waaw di sant bu baax a baax a baax sama sëriñ bi naar bi di ko sant bu baax mais nag man daw ma kenn man fi mu doon ne làmb ji kenn laa fi bàyyi muy jëlkatu bakkan bi jëlatul bakkan sax sa waa ji ka daan jël bakkanu gars yi nu mu tuddati ka daan jël bakkan nu mu Tiwaawan mbul mbul mbul mbul laa fi bàyyi woon te léegi sax fi ñu toll nii nangu naa jël avance am parce que jëlatul bakkanu kenn barki alxuraan karim bu ñu ma seetsee maa mbul ma jël combat sama xarit la woon mais maa moom làmb la alxuraan karim nga wax de non non bëgg naa mbul waaw pël na ko dem seeti bu ko neexee waaw weesoo mbul daw ma kenn waa parcelle laa fi bàyyi parcelle parcelle laa fi bàyyi. dégg lu muy dama la parcelle laa fi bàyyi parcelle. am na am na mbëri xamadi yoo xam si du ma leen fi bàyyi de. waaw bu dee mbëri comme bu dee ñoom booy fee ñi xam nañ yar moom mu por na mi fi bàyyi mais à part ñooñu keneen ku réew ku ne barki alxuraan karim bu promoteur seetee seeti sama ma bëree yow dem écrit individuel. parce que daa am ay mbër yu xamante waaw ñu réew. ku ñu réew. waaw xam na ko ñoom zëm zëm bu parcelle mbooloo booy ay ñoom Moussa Moussa mbër. Moussa mooy Papa Sow numéro 2 bëri na waaw bëri na. ci biir parcelle bi ngeen biir parcelle kii di sant bu baax na san waa ji Baye Fall nit ku baax. di sant après ñoom ñëpp xarit la non non. non suñu waay nga tey ñun suñu mën a defee ay émission xam nga bëri na mais moom dafa ne nit ku baax dafa jàpp booy fay mii di sonn ci ay kombaam man mi tamit waxi nopp ñu am combat mu jënd ay baasam defar nit ku baax la mais fi mu toll li may wax moom mooy instant bi meew mi fi mu toll nii 200 lay jar. mbor mbor ji deux cent cinquante Baye Fall mbor mbor ji deux cent cinquante meew deux cent ataaya ji cent cinquante buy bi deux cent soixante quinze eh, Kalso est-ce que mais mais mais Kalso dañoo gis ne sa combat ba nga gëjee am combat yàgg na te sa combat bu taxawee avant avant date bee ñëw ñu ne combat bi yàqu na mystique bi la wala lan la non non non combat nag waxtaan wax dëgg ci la booy fay nii moom xam na ci dara maa ngi moom ñoo bokkoon journée mu ne combat boo xam si moom mi moomu ci doon entraîné barki alxuraani karim combat boobu la ma gars jàpp duñ ma entraîneur ba damay damay miir ba gis ah, la ter la terre tourne barki Rasulaay dama doon miir ba ah, te nii la ah, terre bi doon def ñoom boo fee sama combat mujj teg ma loo xam si barki alxuraani karim damay tëdd ba guddi bay nelaw jekk mu jàgg xam nga jinne la xam lan mooy yéeg sama kaw damay. na combat mais boobu ko doon waajal ba wuli ah boobu maa ñi ma war a bëreel bëri na mais ci man ñi ma war a bëreel bëri na mais yow mi ngi fi wuli mi ngi fi bébé Elton mi ngi fi keneen na keneen bii saison bi nii barki alxuraani karim bu ma bëriwulee bàyyi làmb. bii bi ah, saison bii. parce que waaye maa ngi liggéey gaañ bari naa ay liggéey i liggéey ma yor bëri na du làmb. instant bi euh, promoteur yi ñu ngi lay kontaan. maam Thierno Birahim Mbacké dama la bëri naa liggéey naar baa ngi may fay wàllum néew maa ngi may fay oto yaa ngi may fay lamb ji pour gars yi nga xam ne dañ ma cee bëgg te yàlla tax rek a tax mais fi mu nii bu saison bi tijjee bu ma demee sat combat moom mu ko amulee mbër ma gis naa la du dóor arrêt ku ma gis dinaa la dinaa la dóor arrêt barki alxuraani karim ku ma gis naa la dóor arrêt. mais yow li nga ñëw arène ba bëriwul. waaw ah non li ma fay ñëw bëriwul man xam nga léeg-léeg tamit doo am jotu ay ñëw ay ay ay stade parce que nekk ci yeneen mais comme tey jii ñu mel na ay ñoom Boy Faye ñu mel na ñoom Niang Balla wala ñeneen ñeen ku ci am combat damay ñëw stade Ah. pourquoi doo wàcc mbapat bi comme arène ba gars yi jëluñu la ngay wàcc mbapat bi ala wa sallam la xawla wala quwwata onze billahi mina seytaani rajim la ilaha illa anta subhanaka wa inni kuntu mina zalimin ay way way way way lan nga wax mbapat comme euh, nit ngaan mbapat yow booy fee am ñaan tax gars yi dañ liggéeya liggéeya liggéeya mbabat nga. mbabat nga. mbabat dañ lay liggéeyal. non non non saa waay bàyyi ko affaire mbabat waay ñu wax. aywa pour man mbabat bi gars yi arène nationale liggéey bi daa mel ne ay loolu question boobu da dem nga laaj ko Boy Faye mi boobu Boy Faye nga dem laaj ko bu ma waxee waxu mbabat waaye tamit foofu nga xam ni a bon euh, arène nationale bi. dañ lay liggéey. di lay liggéey ba boo faatoo sax gars yi dañu continuer di lay liggéey. loolu am na si mbapat. booy mi ngi rey rek. moom lima ko xam na ko parce que mbëru mbapat la bàyyi fi mbapat mi taw Fall booy euh, kii. Euh, xolot da ngay sëree wax sa adversaire normal. gars yi lay dégg. Euh, gis nga nu mu tuddati saison bi jëm nii nii. bu ma ci bëriwulee man damay bàyyi bëre. mais da ngay laaj kan mooy sa adversaire. man dégg nga expliqué xanaa li ma la wax dafa leer dama ne man mbëru parcelle laa fi bàyyi. mbëru parcelle kese laa fi bàyyi man bàyyi ma fi kenn ay xam ay cinq yi cinq tonnes yi ma wax ñooñu ay cinq tonnes maa ngi moom suñu combat taxawoon na bébé tonnes maa ngi moom suñu combat na yaa ngi dégg mesugee ñeneen ak ñeen suñu combat taxawoon na mais yàqawul ci ñoom ci man yàqawul ci man ci ñoom la ñoom la yàqoo man daw ma kenn man daw ma kenn ci làmb barki Seydina Mohamed yow laa nag yee may daw ma daw ma wenn nag barki alxuraani karim yow fi mu doon yow jox ma adversaire yow comme xam nga làmb yow xam nga adversaire say adversaire mooy ñi nga léegi cinq tonnes mi nga wax génnu si xanaa bébé Elton euh, génnu si bébé Elton bu génnee moo seex Niang mi xam nga Cheikh Niang da ko nor da koy Cheikh bu génne na ñëw ma nembal neppale ko. est-ce que ñooñu nga lim tamit ñoom jàpp nañ leen instant yii romb na la. waaw yow ñooñu ma bëggul bëre ñoom man man man man neexee man maa bëggul di bëre ñoom man ma neex ñooñu. waaw ah, suñu faalu tamit. te ñooñu lan lan ma pële ëpp ñu ma doole gënuñu maa soxor ëpp ñu ma musique ëpp ñu ma mbooloo ni leen gars yi bëggee noonu la ma gars yi bëggee ba pare loo ci xamul man fi mu toll nii booy fan yële passé dañ doon wax fi mu toll nii dañoo yàkkamti sama yow booy waaj a bëri loolu nga def nu mu tudd booy joxe déedéet waxuma bon pressé toog yi ngay toog nu ñu koy woowee regroupement ci booy la. comme booy la waa ñoom ñoo ni ma instant bi ni dañoo yàggam sama combat parce que regroupement yi daan am. te temps yi combat yi fi passé booy yi xam nga la ñuy toog ay ay ceebu ñebee. combat yi fi mu jàmm booy la te ñoom booy dañ ni bëgguñu loolu li ñu bëgg moom mooy comme man na ma daan def di ñëw regroupement bi dañ ñëwaat. waaw moom mooy ginaar ceeb ki xam na Cheikh Métro Cheikh. man sama combat mujj Cheikh Métro xam ñaata ginaar la ma jaay. cinq mille cinq cent soixante quinze ginaar la ma jaay barki Seydina Mohamed. ñaata ginaar nga. cinq mille cinq cent soixante quinze ci ginaar ci ginaar. Cheikh Cheikh Météo ngi fi di lay dégg. ku doon togg loolu. ci la amee départ Cheikh Météo ci la amee bi mu ci la ko jëndee. kenn moo doon togg cinq mille cinq cent ginaar. ah. di yooyu ku ko doon ak ñan ñoo xamal xamal la a wax bo xamal la war a wax booy fay ree daan ko xamal dafa metti boo na meew bi booy na ñëw booy fay kay dina la dee mais yow Kalso yow sérieux yow instant bi bu la joxoon avance ndax di nga dina France yow barke alxuraani karim billaahi wallaahi wa taala bu ma ci joxe lekk ci bopp ginaar bopp bopp xar mais di nga ko sëgg man daw ma kenn man ay lamb jël lekk ko yomb na mais ndax isa di nga comprendre quoi man lamb daw ma ci man du ma ragal man du ma ragal yow li ma mujj def fi nii mel man man maa ko mos a def am combat boo xam bëre ak loxo bu damm booy fay mi moo ma yóbboon mii nii du ma bàyyi ma fen sama baaraam bi ngay gis nii barki alxuraan kan sama sama combat bi mujj bëre yëpp moom moo ma ngemb bii nii sama baaraam bi bi muy damm nii bu doon booy fay mi du ma bëre booy fay ma kalso da ngay jël nen nga def ko nii nga xam ne arbitre du ko gis moom mooy combat bi nga doon dégg noonu tama naanoon ci euh, njuuru semiñ bi doomu raami benn sëriñ moo ci joxoon kii xabtalu njuuru semiñ man naan ko sama xol bi tàng barki arbitre day sifflé sax ni làmb ji jeexante xamu fu ma njuuru semiñ bi mooy njuuru semiñ kii la xabtal la semiñ ah njuuru semiñ lañ moom lan la jox moom lañ ma joxoon barki Seydina man naan ko ay picc rek laa doon gis gars yi biñ waaw bu ma waxu coach bu waay yow coach yooyu baaxuñu booy banaana bi nga xam ne moom laa waroon non. day fi ba nga xabtaloo amoo loo def mais ba nga xabtaloo amoo loo def loolu xëccoo banaan. gars yëpp dañ leen war a dàq ak ak deef ñoom ñëpp dama yóbbu loo xam si man moom laa war a dundee ci stade kilo banaana ak meew biridel man daal sa waaye may def ay va vient va vient ñëw ma ne xaaral ma comp par benn banaana ñëw ma ñëw fekk entraîneur ba lekk banaana bi meew ma tamit daaw rek yow ñu lay yóbbu war laa jàppale la nga war a jëfandikoo ñu koy jëfandikoo nooy dàq naa leen ñoom ñëpp ñoom ñëpp pare naa ci ñoom dàq naa daaru dàq naa carré. Euh, kon kan moo nekk sa ginnaaw Boy Faye. Boy Faye kese waaw. non. barki sëy naa dafa métti. booy kilo banaana laa jënd war ko taxam ci ko booy lekk ko. te coach bi xamul fan lañu xiif xam nga dafa ñaaw. ayou coach bi yaa ko joxul moom it mu coob ba suur. non non non mais banaana bi dama ne ko loolu noonu pour bu may def ay va et vient esat booy def ay aller retour di ñëw ci nga war a jël banaana bi booy lekk banaana bi. ma joxe tamit sarax sarax boo xam si sama weccit bi laay ma ne bu làmb ji yeexee mu ñëwee bu guddi jotee ma dem ci baabooy lekk fa yàpp booy ka ma jox weccit bi mu lekk weccit bi non combat moom bu amaatee bi yoon feneen lay ngemboo changé naa yëpp. ñëpp booy fayee sama entraîneur moom mooy seet fu ñu jëm. ginaar gi su sa combat ba gi ci biir ci biir ci biir darab bi. ci darab bi la dugal ba ginaar gi maa ko kalsoo loola mu ne daa am garab gu muy utiliser ci biir darab bi nekk sa waay ginaar gi lay xam ci biir darab bi. non kalsoo loolu yëpp yaa koy def. ah mais yow nooy nooy yow nooy def yow lamb yow booy lamb ji eh mais eh def yow lamb ji jeex yow lamb ji jeex na lamb ji bu jeexee yow booy amatuñu droit ñëw lu ñu wut sa kër ma ma ma dem defar lu benn ginaar saaf ko ma ne bu lamb ji jeexee ci guddi gi ma ma njogandikoo ko booy ñëw taxaw ci buntu booy taxaw ci buntu néeg bi damay xaar xaar bu yàgg ma jël ma jël ginaar gi dugal ko ci biir njaganaay bi ma muuroo ginaar gi dooma re nangu ñëw toog ci buntu booy xanaa bay dem stade joxoo leen joxoo leen ñu añ mënoon nga sedd bu jox naa leen ñu añ sax. booy ba defoo ci kii ba defoo ci gàllaaj booy. waaye daal waaye damay lekk dafa metti man sama làmb dafa metti. yow li ngay ak bopp xar yi ngay coob est que yoon la yow temps bi ngay toog te doo ko bëre du yoon. dëgg la ma lay expliqué man sa waay xoolal ma la nëbb nag man du la nëbb man ma bëreeg ma ñàkk bëre laa yemale. ah. ñoom ñii yaay boo ma gisee sax nga xam ne liggéey naa barki alxuraani karim boo ma gisee barki alaaji Fall Mbaag moo gis nga xam liggéey naa. billaay walaay wa taalaay. te man ak gars yi bokku ñu man gars yi li ñuy def nii man naanu ma ay yaxe ñeey naanu ma ay per bo xar ay teraamisi nii gars yi di naan yëpp ma ci benn booy fam yi xam na man sa jour yàpp laay lekk. ak café Baye Fall Rouselaye booy mee nga gis ne chaque weer ma fay fa deux cent cinquante mille yoo xam si dama ko abonné yàpp booy fay du ma bàyyi ma fen bëgguñ ma gars yéeme na mais naka nga gisee combat bi ñu jëm muy Modou Lo ak Siteu loolu ci mën a non bu loolu weesoo dama bëgg comme sama kii booy xanaa amoon parcelle dafa bëri champion mais dañuy dañuy suul ndaanan ndaanan dafa ne ni toog mën a bëre barki Seydina Mohamed tey jii nii xanaa moo ne bu bu affaire transfert amoon kii am na yeneen club bi ko jël bu yàgg a yàgg mais transfert moo amul ci làmb mais ndaanaan la champion la dafa am combat te barki alxuraani karim beneen combat bii di ñëw ni moom boo amaatee làmb arène dinaa ni nit de barki al xanaa mu teel maa wax ay mbokam mais ku ko jege dinaa la def néew. mbarki sëñ Tuubaa Mbàkke billaay walaay wa taalaay maa maa maa magam ñoo doon ànd a borom baax la billaay nit ñi def na lu ne nag seytaane yi jaxase yi def nañ lu ne mun ñu ma mun ñu ma jaxase ak moom quoi rek ki suma la ah gars yi def na lu ne booy fay dina ñëw léegi toog sax mais yow dan la bëgg a laaj ci combat bi ñu jëm muy Modou Lo ak Siteu lan nga ñu si mën a wax non tamit combat boobu noonu loolu loolu dafa dafa non mais meew mi rek may ma man naan aslëf rek ci meew mi maa ma dolli ma dolli bàyyi ma dolli as lëb. ah léegi nga ni. Modou Lo ak Siteu loolu ci mën a am. Ah, loolu du combat nag loolu day mel na nga ni Angleterre ak Pombiteer nga ni ñaari télé Italie loolu du lamb lamb yooyu noonu jërul sax Modou Lo boo koy wéranteeg ay combat da nga koy wéranteeg yeneen mais pas ay Siteu yi. loolu du combat quoi barke alxuraan karim boo xasee àqulaay. gaa gaa yi nee nañ Siteu mbër mën na dóor Modou mu daanu looy wax si loolu. Modou Lo ku koy dóor judoogul. loolu loolu dadul làmb quoi loolu xoolal wuy ma passé loolu ñu dem feneen bu doon yeneen combat xoolal da may laaj yeneen combat yoo xam si yu ñëwagul ma wax la mais pas bii bi bi féete na boor bu yàgg da ngay wax naan fi mu toll nii Lo bu jugee fi ban adversaire lay bëree loolu mu nga ma a laaj ak Siteu bu jugee fi ban adversaire génnagoo Siteu di wax adversaire bu fekkee yow ñeme nga ci kaaw barke alxuraani karim wala bu fekkee am nga ku ñemee kaaw nga ñëw nga woo ko bu ñëwee fii nii ñu kaaw maag moom 400000 ah, ñi lay dégg. naawkat yi ñu ngi lay. barki Seydina Mohamed loolu kay amut ma dem te ñëw 400 millions nag mënu ma koo weesu moom. 400 millions moom mënu ma ko weesu xaw ma nag leneen lu ci waaj a teg mais 400 millions ñeme naa ko ca teg. 400 millions ñeme naa ko 400 net waaw mënu ma ko weesu. loolu du lamb. barki barki Seydina. xam ngeen si tëddee saa yi. barki alxuraan du lamb. combat mi mujj yëpp ni mu demee sama bëti mie bi sa projecteur bi na gën a yokk sama mie. damay la xeeb ngeen Siteu waaw ah. Siteu xeeb ngeen ko de gis nga combat yi mujj yi. dama xam lamb dafa yàgg ci làmb damaa xam lamb bu baax loolu du combat waay billaay walaay ba taala xam nga loo may laaj comme ay Ama Baldé Franc ay Reug ay Boña yooyu nga may laaj ma décortiquer la combat yooyu mais bii nii féete na boor bu yàgg. Ah, yow si sa gis-gis quoi. non du sama gis-gis dafa nekk loo xam si luy am. combat boobu du. du wees juróom benn minute loolu làmb. benn noonu Calcio Calcio loolu la wax loolu làmb Calcio lay baar rek nga woo ñi ngay woo ak promoteur yi nga xam ne instant yi bëgg nga ñu woo la taxawal sa combat. mais liggéey bi liggéey bi doxul de. liggéey sama liggéey bi doxul de. sa liggéey doxul looy liggéey. ah la may liggéey kay xam nga ko. dëgg yàlla nag yoo xam sama liggéey. sa liggéey yàlla boo am boo am client. non non barki Seydina Mohamed yoo xam yoo xam ne yow xam nga bu baaxee bañ tëyee entreprise bi yàgg na ñii laa jox gars laa joxoon kele kii laa ko joxoon mu dem jox ko booy ama sa waay yaa ngi déglu ma dafa metti mënoo jël ab liggéey boo xam si nga yaakaar ba pare doxul gars yi kenn faatootul. kenn kenn kenn gars yi bu ñu la woo xam ne ñu lay woo ay dans le comment nga yaagan boo ñëwee. déet bàyyil dans le comment ñu tane si jàmm kenn bañ mais dafa war a dox liggéey bi daa war a dox parce que moom la ñu yaakaar dafa war a dox. liggéey bu doxee si yow tamit du baax si ñeneen. waaw mais loolu sama yoon néew ji waaw ah, loolu loolu lan ma sama yoon. yow yaa ngi def lu baax. yaa ngi def lu baax yow boo faatoo koy war nga xam fa nga jëm. ñaanal ma gudd fan yaa ngi def lu bon. ñaanal ma ñaanal ma gudd fan. non non ñaanal ma gudd fan rek ñaanal ma gudd fan rek. waaw non gudd fan moom na ko def. gudd fan ak wér. mais dama ne yaa ngi def lu baax wala defoo lu baax. gudd fan ak wér rek. waaye nit boo dee def lu baax bul xalaat safara bul xalaat àjjana boo dee def lu baax xalaatal ni yow da nga dugg àjjana. waaye ca tàgg boo dee def lu tàggatoo naaru jaana ma nga jëm. tàggatoo tàggatoo. daal na xol ba fees. jaar Diarra Bousso. waxal bu baax maam Diarra Bousso Ndiaye laa la wax. maam Diarra Bousso Ndiaye. ca Angleterre. ca Angleterre. moom mi ma tabaxal kër. moom defal ma xaalis ci sama compte banque. nee nga xam ne damaa yor carte boo xam ne su ma neexee damay dem roof ropi. nee na daa gis na carte bi. waaw maa koy ñaan. ñaanal gudd fan wér. nee na mu ngi lay ñaanal gudd fan. yow xanaa yow carte bi loolu daa mel lu bees la de gis naa keroog nga essati ko. waaw ah, carte ba ngay retiré noonu. waaw ah, carte bi non booy bàyyil wax wax baaxul. gis naa ko waaw ah, carte non waaw carte bu bees mais carte non carte bi dama ko renouveler bu mu màgget ba xaalis bu mu màgget ba dama ko changé indi carte bu bees kon da ngaa gis carte bi. ku ma ci topp nag am problème de boo ma gisee may dugg foofu ci gab bi di génne xaalis ba nga ni da nga jël sa deux roues di ma jéem a topp du ma ragal de. barki alquran karim bu la neexee mën naa la wax fi may jëlee xaalis rond point case bi la bu la neexee ay 2 heures du matin 3 heures laa fay dem jëlee xam nga yow Grand dëkk te sa booy ay bandi lañ. non dëkk ma Grand Yoff. barki Seydina ma fekkee loolu tax nga bëgg maa kar. bi laay moom a kararoon gërëj. bu jógee foofu booy maa ngi sant sama soxna. aja tëjal waaw dafa ndànk doo tëj de. ki ne fii. mu ne koo xam si man musuma sonn ci combat mooy sonn sama combat parce que yàlla day def maak moom dañuy bokk journée dama am ñaari combat barki alxuraan karim mu sonn ci man sama baaraam bi nga gis ni nga xam ne mbër ma dóoroon dëmm la mooy mbër mi vampire ma fi dóoroon mooy mbër ma ñafa dem aree fii mu mu yor bopp nag bi mbër yi bari ay dëmm lañ boo fe mi xam na booy mi bëri simple xam na genn wàll mbëri bu timis jotee ñëpp dañuy ndey soppeeku dëmm ma ci est ba gis la barki tiit tiit la jàpp ay dëmm la boo ne moom mi di bëri simple ci li ma ko mën na koo def tiit barki alxuraani karim booy moo ko fëggee aare bopp nag laa dóor sama bopp bi sama sama bi xoolal bopp nag biir arène nationale barki arène nationale la ñaf nday booy booy bii jën laa loxo ba léegi mënu tane maa ngi li ma ci gën a métti mooy ma ci dankee ceeb ba léegi ceeb bi du taxaw loolu ma gën a métti ci sama loxo bi dama yi sama loxo bi damm ni barki alxuraan kan li ma ci gën a metti loolu la du kay ay ay affaire entraînement kay affaire de li ma ci metti lenn la rek moom mooy comme bu ma dankee ceebu jën ceeb bi day rëcc ceeb bi moo ko dankee ceeb bi au lieu que ceeb bi taxaw benn place day rëcc xoolal gisoo nangul xoolal loolu ma gën a metti mais du kay ay affaire entraînement mais ceeb bi ma daan lekk te mënatuma ko lekk tëjal mbokki Sénégal mbokki amateurs yi rendez-vous bi benn la le 3 novembre ci arène nationale Jandeer production moo woote bés bu mag boole ñaari ndaanaan ñaari champion ñaari gaynde waaye ñaari bañkat jamteer yi bu kayaar xale bi nga xam ni avance am dugg na ci kër bu ne ñu delloo ki ko jël nag du kenn kudul général bu Malika xale bi nga xamante ne ni def na champion d'Afrique wane boppam ci réew mi ba ñëpp ràññeeku xanaa du loolu mooy bombu nucléaire combat boobu ñu jël daal di koy ki nga xamante ne nii mooy Ibrahima Ibrahima Faye Buzz mooy borom Lutte TV BP Actu seen affiche point com le plus jeune PDG de l' Afrique de l'Ouest waaye mbokk yi ci bés boobu pap yi dina fa jàkkaarloo ak caatu waalo combat boobu nag la ñu jël tuddee ko monsieur Ablaye Diouf Diong waaye mbokk yi bu leen fàtte de Farouge ndaanan bi dina fa jàkkaarloo ak Cheikh Super Jamono am jom lool Gorofil dina fa jàkkaarloo ak Talla Gaynde mbokk ak yeneen combat yu doy waar yu neex ay xale yoo xamante ne ni ay ndaanan kullu fadlin lañ kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu le 3 novembre ca arène nationale ñu ànd ci ak jande Air Production